Thiès nag li tax ñu choisir ko dafa nekk euh, dëkk boo xamante ni dafa am euh, taarixu euh, nu ñu koy wax sa transport ndax ñëpp xam nañ ne Thiès mandarga moom mooy benn dëkk ñaari gaar waaye it dafa nekk gox boo xamante ni les nouveaux type du métier du transport maanaam li mujj juddu ci xeetu transport daf fi am doole. lii mu nekk ay Jakarta li mu nekk ay war gaynde li mu nekk transport classique. ndax Selébé yoon la kon tey ji dafay yaa dafay doon yoon ñu ñëw fii cees waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom lan mooy solo ñu fexe ba jéye yi nga xam ne dañuy am ci tali bi mu néew mën nañ dem ba ba lépp dootul amati. li tax ñu war ko mën a euh, saafara ak nuñ koy saafara dañoo gis ni bu ñuy wax waxi insécurité routière dafa am ñett bànqaas yoo xam ne dañ koy duut baaraam. bi ci njëkk moom mooy nit ñi seen jëmmi bopp moom mooy moom mooy war oto muy bu njëkk nit beneen bi ñu ne dañuy il faut que ñu xool euh, état wu oto yi nga xam ne moom la ñuy war ndax oto nag dañ ko war a di càmbar dañ ko war di saytu ndax am nañ fi ay ay ay ay barab yoo xamante ni pour saytu oto la visite technique contrôle économique kan moo war a dawal kan moo warul dawal permis ku ko war a am ku ko waruta am donc loolu moom mooy ci oto bi leneen li moom mooy dañuy war a càmbar infrastructure yi nga xam ni fala la oto yi nit ñi di war war a war muy tali yi loolu tali yi comme niñ ko waxee bëri na projet yi bëri na son excellence le président Macky Sall li mu ci def tabaar fa tabaar fakal kaar macha allah bëri na mucc na ayib waaye wax nañ ko du doy dañu koy dolli dafa war a àggale muy ci tali yi environnement routier yooyu yëpp dafay daganal tey jii daganal laa lay wax tey jii ñu war ko mën a gunge dooleel ko ndaxte infrastructure routière yooyu nga xamante ni yii mu war a fexe ba capital yu nekk bépp capital bu nekk Sénégal ñu war a mën a am lu ñu yombal ñi ciy dugg ak ñi ciy génn waaye boo jëlee Sénégal ci boppam mu ñu war a yombalal duggam ñi nekk ci biti mën a dugg ñi nekk ci biir mën a génn loolu buñ ko ci gunkewul du ñu jeexital bi duñ ko fekk. nag Macky waxuma 2024 waaye ba 2035. le PSE le plan Sénégal émergent moom mooy li nga xamante ni ci lañu tënku te jàpp nañ ni ci loolu la Sénégal mën a sukkandiku ba war a mën a émergent donc ñun candidature Macky Sall en 2024 demande la njëriñ la njëriñ la waxuma ay waxi fantoche parce que nit ñi lii walla lii mais njëriñ la te nag gis nga nag ku gis sëb njëriñ boo ci taxawul nit gis not yore lu ñàkk fulaam jox ko fulaak fayda ñoom dañu am li ñu bëgg waaye it la ñu bëgg pour mu mën a ne dafa am ñi nga xamante ne ñoom la ñu jagleel wàllu woowu ñu saytu ko am nuñ ko encadré ba xool ni mat na léegi ñu war leen a war a mën a bàyyi tàggat leen ñu jaar ci yoon Sénégal dëkku yoon la du ko mun neex tamit nga jóg def li la neex ñoom seen soxla danañ ko wax te seen soxla buñ ko waxee danañ ko bind jébbal ko ki nga xam ne moom mooy kilifa gi mu jébbal ko ña nga xam ne ñoo ko fi toogal ci wàllum transport kon tey jii dañuy recueillir ñoom seeni doléance li ñu bëgg ñu jàppale leen ci Sénégal jëm kanam